واغتنا من إلى الإسلام مع ترك المحال جواد بسم الله الرحمن الرحيم عن حفص بن عاصم جلننجي حفص دام عاصم قالنا يا قرمكو وأبي هريرة أك أبو هريرة يالنا كو يالا قرم ann annabiya sallallahu alayhi wa sallam naka yonentu sallallahu alayhi wa sallama qaal wax na kafa bilmari kadiban doy na ci camsi mën a fen an yuxaddisa mu nettali bi kulli ma samia lépp lu mu dégg muslim yonentu sallallahu alayhi wa <clears throat> waxuma nettali lu amut waaye koo gis lu mu xam nettali ko ne booy wut fenkat jàppal rawatina nag koo xam ne <clears throat> dafay sos ci riwaayatu abi daawud seydina abu hurayra dana wax ne wa sallam wax na ne kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a doy na si cam si bakkaar mu nettali lépp lum dégg doy na sëkk di bakkaar ñu déggee ci ne rawatina nag koo xam ne dafay dafay sos ndax sama borom wax na ne innama yaftari alkadiba alladina laa yuminuuna bi ayatillah ñii gëmut yàlla ñii gëmut yàlla ñii gëmut aaya yàlla yi ñoom rekk ñoo mën a fent aw fen ñoom rekk ñoo mën a fent aw fen lañu yàlla boole ci woy dëggu yi